والسلام على سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu borom bu baax di julli ak sëlmal ci seydina muhammad sallallahu taala wa sallam di leen nuyu te di leen baal wax te di leen ndokkal ci weeru koor bi ñaan sunu borom mu nangoon sunu koor ak sunu jaamu yàlla yëpp te jéggal ma maa ngi leen di leen fàttali sama bopp te di leen fàttali ñu waxtandiku sunu borom bu baax ci ndigal yi te wattandiku bu baax ci tere yi mbokk yi ñu xam ne ñëpp weeru ramadaan mi ngi tàggu xëy na suba ca ngoon du seen bu njëkk mu korite gi war a nekk bu ko yàlla dogalee dimanche walaati na noonu incha waaye li ci des bu ñu ko ci jaamu sunu borom te ñu ñaan sunu borom mu nangul na sunuy jaamu yàlla te nangul jullit yëpp te mu may nu fekk waat ramadaan yu bari ci jàmm dañu bokk farlu ci génn muuri koor yi comme ni ko ki jiitu doon waxe léegi balaa ñuy julli ji yonent bi saa moo wax ne kooru képp ci nun mu xallaqun bayna samaay wal ard laa yarfahu illaa bi zakaati fépp nee na ku sa koor mu si ak suuf si du yéeg ca kaw mukk duñu ko nangu lu dul danga génne zakaat fi mu murum koor danga joxe ko balaa ñuy julli ji mbokk yi mu mel ni kooru ren gii mbas mi mu dajeel tax na ba ay tënk-tënk am na ci waaye lépp nañ ko sant suñu borom yàlla nañ bokk ci ñu koy nettali ñi ci faatu tari jullit yàlla leen borom bi jéggal te yërëm leen parce que nag yàlla nañ bokk ci ñu muy fàttali suñu borom ndax ñu bari fàttaliwu leen bokk jullit yooyu war nañu fàttali bu baax aay bii may bëgg a jàng suñu borom bi wax na wax tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu suñu borom nee na mooy leen néew téye leen mooy leen la téye da ko def mbir mu rëcc waaye mooy moom néew na nga def ko dara mu rëcc li mu bëgg ñu mooy ñun ñëpp mooy bi hablillahi jamian wala tafarraqu buumu suñu borom bi mooy alquran mooy sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te nee na bu leen ko buñ ko defa nañ ko defandoo ñun ñëpp bu ko ñii def ñee di seetaan bu ko ñii def ñee di doy lool defam leen ci jullit ñi dafa mooy aaya bi ñu gën a dégg ci alxuraanu karim moo ko waxee Seydina Muhammad yi mu wax ne jullitu kenn ci noonu du mat lu dul li mu yéene boppam lay yéene jullit ñépp wala ak jullitam du mat jullit wala muy jëf dara loo xam ne benn jullit daf koy dégg moom di ko blessé ci xolam mu yëg ne lii muy dégg dañ ko ciy xeeb wala ñu def ko ci naqaram loolu benn jullit pour koo génn ci làmmiñam te li ñu seetlu mooy su koor gi jotee ni ñu koy defee ci plateau télévision yi ku ñu invité nga ñëw di yëkkati sa kilifa ngir wane ne moo gën ñëpp soo liggéey ñu invité ñu invité keneen mu ñëw weddi la nga waxoon ne kilifaam moo gën loolu benn bit waru cee bokk ngir kenn rek moo ci bénéfice mooy borom tere bi ndax ñoom bitig lañu yor dañuy jaay seen marchandise waaye tarixa yi ñoom du jur ca seen biir lu dul mbañeel tariixa moom ngir yii ñu nekk ñoo yem ngir imam Malik ak yu mel noonu benn lañu foofu nekk te sellal am nga ne suñu kilifa bu baax la daf na ko misaaloon ne tariixa yi ñu ngi mel ni ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi nga bëgg a tam kii bàyyi kee te borom bi te borom tele yi seen yoon nekkut ñoom ni ñu leen invité yow nga ñëw yëkkati sa kilifa xeeb kilifa ak jàmbur su ëllëgee noonu la ñuy invité moromu làmb bi ëllëg ñu invité musicien bi ëllëg ñu invité fecckat fexe ba nit ñi di leen seetaan bañ jaay seen produit rek mooy seen kon jot na li kilifa yu mag yi wax ci ndax li muy yàq bari na doomu aadama nag boroomam moo ko moom moo ko ko bind te sepp ko kenn waaye daf ko bàyyi ak liberté na ko lu la neex gëmal mu gëm te weddi ko wedd suñu borom ku ko mën a def itam du tax mu rey la ak lu mu la mere mere te sa waxtu jot du tax mu téye xéewal bi itam ci yow ak lu mu la mere mere li muy jox ci xéewal adduna yi ñu ko weddi joxu ko sax di ko te nekkul jullit nag mooy farata waaye laneen loon boo xasee ba nekkul jullit doo nekkul itam suñu borom dina ko wax ci alxuraan alxuraan karim ne wala tamutunna illa wa xew bu leen faat nekkul ay jullit muslim la wax mooy jullit boo xam da ngay jëndal sa lépp sa borom te Sëriñ Tuubaa dafay wax na wérde yi nee na wérde yëpp baax yépp ko sunu borom lañ jëm muy jaar na ci yëpp moom sëriñ bi su na ci mag ñoo xam ne ba ñu jébbaloo te yore wérdu xaajir daf leen ko digal ñu téye ko xàjjale gi ñuy xàjjale tariixa yi rek àgg na ci dañu bokk gëm ñun ñëpp sax ñun laa ilaaha illallaah kenn bokkaliwu ko ak su morom moo koy wax ku ko ci wax ñu xam fa bokk Sëriñ Tuubaa bokk na ci li mun a te bind ko bàyyi ko bi mooy falaa tuaadu man raaytum faaw yuxriju laa ilaaha illallah nee na yéen murid yi ko gëm ko koo xam ne gémmiñam ma noonu kon murid buy wax lu ñaaw benn jullit ak bu mu mën a doon xëtt nga digalul sëriñ moom sëriñ bi nag kenn mënu koo tooñ tooñ ko tollee di ko tubaab yi tooñ te def leen jéggal kon bu ko kenn xulóol bu ko kenn xeexal xër nag dafay xajam ak diine xeebaat dafay jur mbañeel te ñaar ñi rekk fi nekk koo dajal kenn bi ñaar ñi ki nga bokkal tariixa ak ki nga ko bokkalul ki nga bokk ki nga ko bokkal moom jërul campagne ndax yéen a bokk lu ngeen ki nga ko bokkalul moom moom daf laay daf laay yërëm jàppe la ku réer ndax dafa defe ne boo gindeeku woon fekk si ko te ki nga defe ne daf laay ñeer te fekk daf laay yërëm du ngeen kaw gindeeku te sunu borom ay ngëneelam du jeex te ku ko neex la koy jox raw ci raw ca nit nag nga ëppale ko ci ëppale muy jàmbaar defe ne sa kilifa dong moo am ngëneel fa sunu borom nag loolu mooy njumte lu rëy te bare na kuy fëggut dënam defe na taarifa bu mag la ca tarixa ba mu nekk te borom tarixa moom fii lim ay taarifam du ko limaale te saa waxee ne sama kilifa moo gën ci kilifa yëpp sax na sa bopp ndax kon moo fi war a gën ay taalif te lenn li du dara lu may yàbbus senegal yàbbus daf fay loo wax ñu ne dara lu fi xew ndax mag ñu fi tëdd mag ñu fi ndax am nañ ay waajur am na ñu leen fi magoon seen waajur leen magoon la leen seen borom jaral nag la jaralul ñu bari waaye mag ñi tëdd fi du tee suñu borom def coobare ni mu ko neex te sax demoon tey Iran wala Irak wala Israël ak Palestine ak Syrie yu baree ba ñëw ko tëdd yoo fa am amul fenn dara ci àdduna damu ak xeebaar nag jëru ko bis pénc bi nekkul ci suñu kanam ci kanam la nekk suñu fa demee lépp leer ku nekk xam xel ak kër a gën jërul yàkkamti yéem sa kilifa nag roy ko moo ko gën ku ñu mënula roy amul ne kon yonent bi saa sam moom la ñu roy loo suñu borom daf ñu koo roy loo néewu nag dee ko seetaan ak di ko yéem dee leen ko roy la wax suñu borom amul dara ci biir alxuraan bu dig ñiy yéem koy roy la dig ak te suñu mag ñi ñuy yéem seeni mu baax si suñu lañu bàyyi sunu borom nag bañ na lool ku yëkkati ay jëfam di ko naw ak di damm mu wax ne inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura te yéem ak roy nawet moo leen atte su nawet jotee ñëpp ñëpp ji dem demoo ji xanaa di yéem gàncax ma baykat yi ba pexe jot nga xam ne roy ak yéem lu loolu moo tax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne àdduna fukki weer ak ñaar la nee na juróom benn yi dama koy takk Seydina Muhammad juróom benn yi ci ma di ko julli ci moom waaye maa ngi ci saa damay ànd dama koy roy lépp lu ko sunu borom jox na ma koy defe laa koy defe du ma nangu mu man ma jox kooku kon daf doon roy yonente saa sam nekkul wëddi ko yépp te lu ci bari nag topp rek la bànneex boo ne maa anzalallahu bihaa min sultaani in yattabi'uuna illa zanna wa maa benn lay buñ ci mën a indi bu jóge borom ñëpp topp njort rek la ak topp seen bànneex ak topp seen bakkan te topp say bànneex nag kenn du ci am ngërëmul sunu borom fent dooy jaamu yàlla itam rëcc rek lay jur ëllëg borom bi nee na ña woon xër ak réer muy nasaraan yi ba sos ak labbe yu ci seen diine jooju nee na dañ koo defal ngir di sàkk ngërëmal sunu borom borom bi nee na farataaluma ko ci ñoom lañ ko ñoo ko fental seen bopp waaye mënuñu koo sàmm dëgg dëgg sàmm wa rahbaaniyatan waaye fa maa rawhaa haqqa loo fental sa bopp mu diis ci yow sunu borom mi ne bind moo xam li nga attan lim la teg rek ngay attan sàggane farata ak sunna fekk kitaab même ku rëy rek lay jur yomal xiyam borom bi nee na ku ko bokkaale fii ci àdduna di nga ko même yomal xiyam day fekk bu weesu ba yomal xiyam kuy xeeb naw leen naw boppam noonu jullit gën a am ñi ñu a fasaaroo di gën a yàq lu ñu lu toll dañuy bi noonu jullit ci suñu biir di ñuy dund fii mu ne adduna bi yëpp maase taxaw dara doxul kenn mosu koo gis ba ba tey sunu borom dina ci fàttali kàttanam bi dina xamal ne moom dong mooy am faw xéeba mooy ci not jaamam yi ñëpp ñëpp lom koñ fa kanamam tey jii mu teg na lu kenn mënu la teg waroon na noo fàttali sunu borom wërit ñuy toog ci tele ku nekk naan sama kilifa gën sa kilifa di wegg sa kilifa morom waaye doomu aadama dafa dëgër bopp bu tiitee minute yu néew mu génn ca delluwaat ca la nekkoon di ko layal moom di ko boole borom bi nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne su asamaan si defoon ay morso di rot ci seen kaw itam du tax ñu tiit dañ koy layal dañ koy layal dañ naan ah lii de xam naa ay lii yu tegaloon rek wa in yaraw kisfan mina samaa'i saaqatan yaqulu sahaabun markuum dara mënu leen a jàng ci waxtu torox la ak ñaan ci lañu toll borom bi nee na ba ma leen tegee sama ay muy mbas mi lu tey ngeen torox lu ma teg walaw laa is jaahum baxsunaa tadaqaw walaakin nee na waaye dafa nekk xasab xulóobam nee na xol yaa wow duñ tiit mukk wa sayyara lahumu seytaanu maa kaanu ya'maluun nee na la ñuy jëf dara baaxut na dara ko rafet waaye seytaane bi ko rafetal ñu defee ne ñu ngi ci jàmm yàlla loolu nag moo yaatu lool kon mbokk yi lépp luy sabab mbañeel nañu koy daw jikko yu bees yi la moo tax suñu tuddee aljanna ëllëg yàlla na ca li sulman bi njëkk dindi ci nun mooy ak mbañam wa nasaxna maa fi sudori min xillin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa sallam